alors euh, Sow Poulo mi ngi noonu ñu dugg ci euh, euh, waxtaan bi commencé par candidature de Benno jamono ji mu mel ni nag le président Sall jamono ji wala le président sortant comme j'aime le dire moo war a nag définir carte gi fan nag la war a féetee. waaw surtout que nee na il faut ñu jox leen gars yi ko au-delà de l'APR nee nañ ko ñoom il faut ñu jox ko waa waa comme dire ñoom alliés yi. Mm. ab ñu tudd AFP. Mm. bu Moustapha Niass bon c'est pas étonnant Moustapha Niass te nañ ko fukki at ci présidence de l'Assemblée nationale kooku il faut mu fay borom d'ailleurs moo tax ñu dàq Alioune Sarr parce que Alioune Sarr mi nga xam ne moo doon ministre euh, transport aérien bu bu bu remplacé woon Malick Gakou bi bi ñu dàqoon moom tamit. Mm-hmm. nekkoon ministre du commerce kooku tamit parce que ñooñu dañu doon xatal xatal Moustapha Niass ci biir AFP. Mm-hmm. par rapport ak euh, yi mu doon teg. bagage yi mu doon teg ak euh, Macky Sall mi nga xam ne moom mënu ko woon supporter sax ci ci ci photo eh ben euh, yooyu moo taxoon euh, démb dégg nga mu dàq leen donc ki mujj mooy Alioune Sarr nee naa leen candidat la AFP la bokkoon mhm. moo doon pratiquement le numéro 2 de l'AFP kooku dañ ko mujjee dàq pour écarter ko parce que nee moom ñoom seen deal bi ñu tegoon ak Macky Sall c'était juste pour jàppale ko le temps de d'être président de la République deux fois après ñoom ñu retrouver seen indépendance donc Moustapha Niasse nee ko du loolu dañ ko teel a dàq moom mu ne day nekk candidat créé li ñuy wax CAP euh, moom moom moom Alioune Sarr. Mm. donc ça fait que ne effectivement euh, Moussa ak AFP nee nañu Macky Sall gongo boobu juste pour dire que ni. Mm. bettul kenn. Mm. Euh, waa PS aussi c' est la même chose nee nañu bettuñu kenn évidemment Aminata Mbengue Ndiaye HCCT et cetera.

ak euh, LD originel. Mhm. donc ñoom tamit nee nañu LD originel nee nañu ñoom tamit ga euh, waa ji la ñuy euh, lu mu def baax na. Mhm. waa PIT aussi c'est pareil ndeysaan dans soxo nekkatu fii Ibrahima seen nekkatu fi eh ñoom tamit nee nañu waa ji la ñuy ànd ak ainsi que les autres petits partis politiques. mais mu mel ni waa nag fi mu ne kon am na problème. parce que même au sein de l'APR déjà waxuma sax yeneen ñi nga xamante ne tey jii dañu ñëw en coalition. Mhm, mais au sein de déjà. mu mel ni kan la war a mën a tànn. am consensus ñëpp d'accord ànd ci ginnaaw kooku saa va poser problème parce que nag gis nañ potentiel candidat yu ci mel ni Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye euh, euh, Amadou maam Diop mi nga mhm. xamante ne jamono ji aussi ñu koy boole ci liste bi ak ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Daouda Diallo euh, Farma Ngom aussi mu mel ni bokk na ci dernière chance yi dégg naa sax kenn ku ne démb même Mariam Faye Sall mën nañ ko cee boole. donc c'est c'est vrai carte gi mu mel ni xum na loolu. c'est vrai que mais gëm naa au moins ñaar ñoo xam ne ñoom wóor na ma ni ñoom lu waa ji wax loolu la. Mhm. te il le pense. moom mooy euh, Mariam Faye Sall <laughs> di jabaram ak far ba Ngom bi nga xam ne ndeysaan moom mooy. Euh, bokk na ci dernier euh, chance yi waaw waaw ñoom ñaar wóor na ma ni ñoom lu waa ji wax loolu la ñeneen ñi ne xaw ma ndax li ñuy wax dañ koy xalaat wala déet. Mm-hmm. mais dina xaw a doy waat tey Amadou Ba bu ñu ko deful euh, euh, candidat. Hmm. moom nan la war a réagir sachant que ni Amadou Ba dara dara deseetu ko li mu bëgg rek mooy nekk président de la République jëm na toog yaru euh, fexe ba bañ a def comme Mimi Touré. Hmm. jëm na góorgóorlu jàpp ñàmburam croiser les bras. Hmm. muñ pour espérer un jour et puis dans les. prochain euh, ou prochaines heures. Mhm. Euh, espérer yàlla dimbali ko euh, kilifa gi ne ko yow yaay yow laa choisir pour nga nekk candidat. am na ñu koy susurré mais bu ko choisir eh, Abdoulaye Daouda Diallo sachant ses relations ak Amadou Ba. est-ce que yëf dina yomb. dina xaw a difficile waaye au moins une mm. chose Macky Sall am na foofu benn chance mooy Abdoulaye Daouda Diallo lui est lui est docile si je peux le dire comme ça nit koo xam ne la lu ko Macky Sall wax lay def moo gën a moom laa gën a wóolu sax ci sama ci doxalin ni may seetloo nii que ni moom moo gën a mën a nangu. dégg euh, ndigal dégg waaw kay dégg ndigal que euh, euh, ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba bi nga xam ne à tout moment tey bu ñu ko choisirul woon bu ñu ko choisiree mun na mun na bifurqué wu. Mhm. eh ben am ay comportement yu bees yoo xam ne kenn mës koo gis si moom parce que il est réputé être quelqu'un de docile lui aussi. Mhm. en lu nekk yàq nañ ko ko nee nañ ko da ngay lëkkaloo opposition bi nee nañ ko vous pas sincère nekk da ngay jàppale ay nit yoo xam ne pour ñuy xas Macky Sall et cetera. lu mhm. nekk wax nañ ko ko est-ce loolu ñu ngi koy xam bés bu Macky Sall même même bu Macky Sall choisiroon Amadou Ba loolu kenn du ko mën a xam mhm. ndax bu boobaa affaire bi day normal day day làqu mais bu fekkee ni mhm. Macky Sall choisir ko foofu ngay xamee ndax Amadou Ba véritablement euh, ah, docilité beeg euh, ak kii boobu noonu dégg ndigal boobu est-ce que dëgg la wala du dëgg Aliou Ndiaye un peu plus Euh, honnête entre guillemets parce que au moins lui il se montre il a envie d'être candidat je pense que ni am na ci ay béréb yu mu dem mhm. am na ñu mu ko wax mi ngi préparé wu parce que j'ai mes sources et puis pétition bi mhm. je crois qu'il était absent il était pas là waaw xam nga yooyu di mun nga def fexe ba ba bañ ba bañ fa ba ba doo ñëw mhm. euh, euh, dem ñu poser la bu la neexee sax loolu nu mu tudd perfusion pour nga ne dama dama dama tawat le temps de de revenir entre temps peut-être di nga am temps pour kan lay kan lay jël mm-hmm. sachant que ne yow xam nga ni da war a mën a bokk parce que yaa ngi lijjanti ci suuf moom mm-hmm. Aliou Ndiaye pour euh, s'organiser parce que am na ñu muy ñu ñuy préparer pour mm-hmm. euh, ñoom ñu ñëw jàppale ko ci suuf au cas où parce que gëm na ni moom Macky Sall du ko choisir c'est vrai que c'est pas très évident parce que il est maire de Linguère il n'a pas véritablement il n'est pas il n'a pas une envergure totalement nationale ou tout entière mais donc ça pose un problème moom Aly Ngouille mhm. mais euh, c'est vrai que Linguère aussi xaw na fa euh, taxaw waaye Pastef bi mu ñëwee temps yële xaw na leen rend tuuti ñoom El Malick Ndiaye xaw na leen yëng yëngal tuuti donc moom kooku est-ce que dina am euh, doole dëgg-dëgg pour euh, mën a kiiwu Sénégal mais mu ngi yaakaar aussi ci yoonu murid bi am na ku yaru aussi am na ku yaru Ah, donc euh, euh, man par exemple Serigne Mountakha maa ngi ko njëkk a gis kër Aly Ngouille Ndiaye parce que Aly Ngouille ñoo bokk koñ en fait. Serigne Mountakha da doon ñëw chaque année en tant que taalibe. kon yow fan nga dëkk. je me déplace <laughs> dem non pas pour seeti Aly Ngouille je la je damay lay leer mais dem ziyaari ji Serigne Mountakha parce que nit la koo xamante ni dama doon rêvé gis ko mhm. gis ko kër Aly Ngouille Ndiaye je me déplacé dem ziyaari ji sàkku ñaan donc pour dire que am na ay relation ak yoonu murid bien avant qu'il ne soit ministre temps yi demoon na fa parce qu'il n'était pas encore ministre temps yi demoon na fa euh, euh, est-ce que pour sàkku ñaan Mm. sëñ Mountakha. Euh, moom Aly Ngouille Ndiaye waaw waaw. je crois je crois que Aly Ngouille Ndiaye va être candidat aux élections présidentielles mu neex mu naqari euh, le grand prince. Euh, am na benn affaire boo xam ne nag équivoque boo xam ne de foog mu wax ko c'est-à-dire que diggante daaw Daouda Diallo ak Amadou Ba. si mm. loo leen xamul Amadou Ba. man mën mën naa ne dafa dalal Abdoulaye la Diallo impôt domaine donc ñu amoon ay relation politique bi ñëw féewale leen. Hmm. te en politique aussi am na loo xam ne lu ñu ne légitimité. Hmm. tey Amadou Ba même su fekkee ni ay nit dañuy poser ci moom il a un problème de légitimité politique parce que parcelle bu mu nekk ku mënul gagner commune. munoo gagner département pour man vraiment waroo am ay prétentions démesurées pour nekkat kat da nga bëgg jiite réew. <coughs> du question dara je suis pas la pour kii koo xam ne munoo gagner commune. Hmm. boo boo demee élection gars yi dóor la. kon yow da war a taxaw saytu nekkat kat gars kat ah tandis boo xoolee ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye il légitimité politique boo xam ne Linguère loo defa defa def bu wem gars yi booloo woon yëpp day ñëw mu mu teg mais Linguère du Sénégal tamit. non mais du question dara mais politique of nga am légitimité politique légitimité. d'abord légitimité c'est au niveau local wala c'est au niveau national départemental. non c'est au niveau national. non j'ai dit que Aly Ngouille Ndiaye président pour un président de la République. waaw da am légitimité nationale mais d'abord foog nga am légitimité sa sa sa département. parce que Macky Sall par exemple bu muy bëgg jël réew mi dafa wane ne Fatick dafa am lu mu fa représenté. Hmm. mais koo xam ne ni yow munoo gagné commune boo bëggee laaj national munoo gagné département. Ablaye Wade dëgërul woon trop Kébémer ah, te nekk na président. waaw mais attention attention. Euh, benn moment Ablaye Wade Kébémer si Kébémer benn moment daa basculer ci opposition avant ñuy ñëw pouvoir loolu nag c'est une question boo xam ne ne moom moo am mhm. et tey loo mënti wax ci loolu ñaar ñee ñëpp am nañ légitimité Antoine Diome boobu tamit mhm. moom tamit xombol euh, euh, mhm. <laughs> yooyu yëpp ce sont des équations yoo xam ne pour man galaa ngay laaj te Aly Ngouille Ndiaye aussi lu ñuy xamul am na un mouvement national boo xam ne mu ngi ko créé parce que ba muy la mouvement je me la je fii la woon Guédiawaye mm. au Ravin jour boobu tombeel Idrissa Seck di def congrès d'investiture am fële ci euh, nu mu tudd ci stade Amadou Barry te élection yooyu mu passé diggante élection locale yooyu Aly Ngouille Ndiaye sonal na woon Habib si à Linguère d'accord kon mu wane ne donc légitimité politique dafa am solo kon mm. Amadou baax pour man avant muy laaj ñu réew war na wax parcelle moom lan moo tax munu fa gagné mhm. mu expliqué ji parce que y a Moussa Sy là-bas et ñoom ñoo bokk ra moom Moussa ñoo bokk mais mhm. depuis boobu ba léegi même bi kii ñëwee. Mhm. Jamil Sané ñoom de euh, waa Pastef ñoom ñoo ko gagné. ci élection yi yi passé locale yi. Fatou oui. en tout cas je peux dire que le président Macky Sall mën na surprendre son monde. Mm. Euh, parce que moom bañ na ko ba nee na buy choisir du ko euh, choisir ci question sentimentale. Mm. wala base affective ku dem ba wax loolu kon kon moom peut se à tout te bu fekkee comme Aliou wax na ko ci côté kaw première dame choisir ko loolu yàgg na am <laughs> gis nañ euh, Hillary Clinton. bokk na ci présidentielles yi amoon intention ya ya Simone Gbagbo moom tamit mu ngi wax intention ci bokk ci présidentielle donc c'est c'est c'est c'est pas est-ce nag Sénégal Sénégal nag ah waaw mais mooy loolu rek bu demee bu ko wala waa lan mooy unanimité est-ce que dina ko am hmm. tamit loolu mooy problème bi choix bi xam naa sûrement moom dina poser problème seen biir mhm. parce que comme bu fekkee am na déjà ay kuréel ci diggante ay personnes yi bokk même parti même formation politique. déjà mhm. ça ça pose problème ça xëy na lu ñu dem ci deuxième sujet bi mhm. mais monsieur Guèye euh, boo amee loo sànni par bon man ci sujet bi en tout cas euh, li ma ci yaakaaroon. Mhm. muy kii ñuy choisir ci côté boobu comme ci beneen côté. de euh, année c'est-à-dire 2024 mën na doon président de la république. te mi ngi wax léegi problème de légitimité. ma jàppoon ne waroon na ay mécanismes de choix plus démocratique que ñu lay nommer wala ñu lay choisir mm. nomination la en quelque sorte demee nga war a jiitewaat réew mi mm-hmm. c'est comme si que fii toogaat bu génne ci camp boobu président Macky moo koy nommé moo koy tawaat waroon na moo tax ay mécanisme de choix mm-hmm. puisque am na ay structure yu leen séq ñoom ñëpp waroon am benn mécanisme de choix plus démocratique. Mhm. c'est important alors. c'est, c'est euh, dommage quand même parce que mhm. parce que loolu nga wax noonu. Mhm. je crois que il faut que ñu koy euh, tàmm di wax sénégalais yi. ñuy xam ni euh, ki ñuy fal nit ñi ci base ba lay jógee. parce que loolu amu fi man je trouve que même ruslu ñu naan diw loo def baax na parce que diw nit la. ak ay noppam. waaye bu dee diw loo def baax na la gouverner ba war fee jógee loo def baax na la fiy jógee tànn laat ñu. non xam nga diw dootul gouverner. normalement dootul jiite te bu fekkum jiitewul dootul moom beneen nit mooy ñëw comme moom. avant muy nekk fii Ablaye Wade ni mu fi nekkee woon moom mu nekk ci ginnaaw Ablaye Wade topp ko Ablaye Wade yor les grandes orientations. Mm. muy exécuter moom bi mu ñëwee je suis sûr que deful exactement comme Abdoulaye Wade. Mm. il a à peu près autrement même bu fekkee ni waa góor gi inspiré na ko ci lu bari. Mhm. donc keneen bu ñëwee aussi il ne peut pas faire exactement comme Macky Sall il va faire euh, euh, à sa manière ak gis-gisam ak problème ak situation contexte contexte moment boobu liy xew ci réew mi ak conjoncture mhm. donc yu bari dina changer moment boobu il ne pourra pas faire celui-là. qui mhm. sera élu bu fekkee ni fii la jógee parce que mun na jógee feneen. bu fekkee ne ci ñoom la jógee il ne fera pas exactement comme le président il y aura certainement d'autres changements d'autres nouvelles orientations donc man je pense que nii dafa ruslu sax ñu naan nga naan ndit nit Euh, euh, euh, choisiral diw li ngeen war a def kay moo ngeen léegi ñun nan la ñu mën a organiser pour ñu xool ñi nga xam ne mooy les potentiels prétendants au niveau de cette grande coalition de Benno Bokk Yaakaar ngeen xool léegi bu fekkee ni ñëpp inscrit nañu vous avez à peu près un mois pour vous préparer ngeen xool département yi vous en avez 45 ou 46 départements mhm. au Sénégal léegi ngeen xool département ñi leen fi représenté ngeen wut ay ngeen ñu euh, maanaam bu fekkee ne département xaw ma quoi Kébémer mhm. euh, ki leen fa repre ki leen fa représenté ki ñu fal foofu pour mu ñëw euh, voté leen. Mhm. kooku moo ñëw mu voté ñu ne mu ne man sama département diw la ma yónni nee na diw mooy voté. Mhm. yaa ngi dégg et cetera et wala sax ñëpp ñëw voté ndoo képp koo xam ne am nga carte wala nga doon sympathisant nga ñëw instruire nga ñëw nga fal diw. c'est important yaa ngi dégg waaye diw mooy choisir waaye diw bu choisiré ba juum nag. Mm. mais man je préfère moo tax patron. patron di koy nuru juste rek pour terminer patron di koy nuru gis nga patron bu gën a ay mooy pat buy gën a taxe patron buy gën a réussir ses missions. mooy patron buy ñëw ne euh, say employé <coughs> wala say sujet ne leen yéen lan ngeen bëgg ñu def. boo leen ci déggawee mu seet majorité bi ñi choisir mu ne leen ayca nañu def parce que bés bu ñu gagné on va gagner ensemble mm. mais bés bu ñu perte aussi ñoom du ñu am lu ñu wax parce que ñun ñoo ko choisir ndoo c'est pas moi qui l'aurais choisi yooyu la quoi nañ bàyyi nañ dugg ci état d'esprit boobu euh, ci réew mi waxtu wi fi mu ne léegi mu xoñu mm-hmm. mais deuxième euh, euh, dernier sujet bi Aliou Sow mm-hmm. Mm-hmm. mu di Ousmane Sonko par force candidat mu mel nii le 15 juillet yamoo ak le jour de son anniversaire war nañu amal benn giga meeting d'investiture ngir samp ndëndu ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko comme candidat élection présidentielle. absolument mais xam nga dafa am parole politique. boo xam ne da nga wax ci biir ak li ngay wax ci biir bu fekkee ni li ñuy wax ci biir ak li ñuy wax ci biti ngoon na moom ba c'est mieux mais sa va être extrêmement difficile parce que 15 juillet moment bi nga koy fal xam nga ni y a y aura éventuellement des possibilités wala wala des hypothèses qu'il faudrait retenir te hypothèse yi muy dem na wala mu bañ a dem est-ce que Ousmane Sonko dina mën a dem ci candidature ba wala est-ce que ñoom dañuy wax loolu parce que ils sont en politique à juste titre et que ñi ngi am lu ñuy sóoraale ci suuf te boobu tamit dina metti parce que bu fekkee ne d'autres plans la ñu mën a def jël ñu dul ay cadres yi nga xam ne ñoo leen nekk autour et ces cadres là sont quand même parce que dañ leen téye ci ay béréb euh, te te dina metti torop donc euh, lii ragal lu kay mooy insister jusqu'au pour que Pastef n'ait pas de candidat et que perde son projet définitivement. Mm-hmm. Et ça, moi, je trouve que ce serait dommage parce que man gëmuma nit. man dama gëm ni euh, un projet mooy dem et que nit gëm naa nit parce que bëgg naa nit. Mhm. mais nit moo ma war def lépp comme li ma ko doon waxee ci Macky Sall moo war a choisir man xamuma loolu li ñu war def kay moom ñu seet nan la ñu mën a def pour que ñoom bés bu ñu gañee mhm. wala jiital ki nga xam ne moo gën a am le meilleur profil. Mhm. pour bu ñu ko gañee ñu mën a mettre en pratique ce projet ambitieux là euh, du PASTEF bu fekkee ne nag defuñu ko euh, def comme Ablaye Wade ni mu defoon ba passé parce que Karim Wade bokkul rek et que moom il a 2019 yi ce serait dommage parce que Pastef le ak état d'esprit Pastef dafa war a bokk ci ay élections que ce soit Ousmane Sonko euh, qui le dirige ou qui euh, serait euh, justement plébiscité pour pour mu candidat wala mu doon c'est pas important ce qui est important mooy la projet bi nan la ñuy def pour réussir ko ak kan moo am le meilleur profil pour jiite loolu tant que c'est pas Ousmane Sonko. Mm -hmm. ça pourrait être Birame ça pourrait être Bassirou ou quelqu'un d'autre. ils sont pas dans leur logique parce que depuis ñu ngi naan que amuñu plan B. amuñu mhm. plan C A ñu am. Mhm. mu dégg na ñenn ñi nga xamante ne aussi seen xam-xam màcc na ci wàllum yoon ak moom le principal concerné. Mhm. Ousmane Sonko la dernière fois sur France 24 dire qu'il est toujours éligible. est waaw mais euh, moi je pense que ni moi je crois que ni waruma mais je crois que ni loolu dañ koy dañ koy def parce que aussi ce sont des hommes te war a war say gànnaay da nga koy ga munoo wane sa gànnaay yëpp sa sa say armes yëpp amoon doon na yoo xam ne il faut nga nëbb ko yi yii fës rek ngay wane yeneen yi nga téye ko pour la surprise de la dernière seconde parce que bu fekkee ni aussi loolu kese lañ jàpp et un jour mooy li ma wax rek. def comme erreur u Ablaye Wade boobu au en 2019 ça serait dommage parce que euh, euh, il faut déposer une candidature bu fekkee ni parti bi dafa war a dem bu fekkee ni déposer nga te wóor na ni am nga toutes les chances de pouvoir réussir c'est-à-dire que nga jàll parce que tu auras accompli euh, toutes les conditions qui seraient réunies bu boobaa d'accord naa mais est-ce que des fois ak seen expérience dinañ jël risque di déposer sachant que ni bu si dara benn gàllankoor bu ndaw amee rek perte ngeen te ce serait trop tard pour ngeen jël keneen dugal ko pour mu remplacer kooku. Mhm. boobu dina poser un problème. te risque yooyu gëw ma dinañ ko jël parce que ce sont des gens qui sont intelligents même bu fekkee ni du lépp la ñuy wane. mais lan moo tax mu a poser réew buñ ne ne état de droit la ku ci nekk am droit dem Euh, moom nee na du bokk waaye tamit est-ce que du du ñu baal rek. ki war a bokk bokk ñi bokk duñu bokk. waaw mais xam nga kii wax kii wax ñi war a bokk ak ñi warul bokk on a le droit de dire oui damay bokk sama xalaat la dama bëgg a bokk parce que doomu Sénégal la fii laa juddoo. ki euh, qui quiproquo que ce soit dama war a bokk n'importe comment waaye nag à ma moment donné boo nee dama war a bokk dafa am koo xam ne mooy valider sa bokk. Mhm. te bu boobaa aussi kooku bés bu defee neneen loolu risque boobu waroo ko mën a jël da war a réfléchir sur plusieurs angles teg say dil bu leer nañ même bu fekkee ni waxoo lépp. mais au moins préparez-vous en conséquence pour que au moins ce qui est le plus important et qui n'est pas forcément votre personne ou la personne de quelqu'un d'autre mooy au moins ce projet qui est solide et euh, gi nga xam ne beaucoup de Sénégalais dañ ci am yaakaar ñu bañ ko nasaxal pour que après en reparler dans cinq ans et que ce serait dommage parce que li am importance mooy mm. juste rappeler que ni François Fillon devait yooyu yëpp ay jàngat la rek devait être remplacé normalement Nicolas Sarkozy Emmanuel Macron waru woon nekk président Euh, François Hollande waru woon nekk président ki waroon nekk président remplacer Sarkozy théoriquement mooy euh, euh, François Fillon nga xam ne moom mook Sarkozy ñoo nekk pendant cinq ans France boobu ngay mës a gis ni un président de la République nekk ak le même premier ministre pendant tout le mandat musu koo remplacer. Mm. c'est très rare ci ay mandats en mm. général dans nos républiques là contemporaines donc kooku Sarkozy boobu François Fillon boobu benn gàllankoor la am mooy jabar ji dafa am benn salaire ay salaire fictif ci conseil régional bi mm-hmm. te constaté nañu ni moom mosu ñëw di liggéey si mm. sans doute parce que mi ngi doon toppatoo jëkkër ji premier ministre mais mosu ko mosu fa liggéey ñu génneel journal bi génneel ko loolu loolu moo tax jëkkër ji mm-hmm. euh, raté présidence de la république waaw loolu loolu loolu neexul pour quelques secondes Théo deux regards laa ci am benn bi dafa mel ni comme Pastef à part Sonko personne n'est capable tey loolu lii loolu nag amoon PDS looloo amoon PDS parce que PDS alors que le Gambie a montré qu'il a il y avait possi il possibilité de changement avec Barrow ce qui s'est passé ba mu libéré Ousseynou Drabo ah. beneen affaire boo xam ne am nag moom injustice côté mm. euh, euh, candidat parce que mënuñu comprendre mm-hmm. est-ce que Sénégalais qu'on condamne pour un million après avoir détourné les deniers publics mm-hmm. kooku ki détourné ay milliards ñu accusé ko dafa détourné ay milliards mm-hmm. moo gën kooku ba kooku war a éligible dem élection ñu bàyyi kooku tëdd ci kaso bi. Mhm. di continuer te kooku du nekk candidat kon dañoo war a mettre tous les sénégalais sur le même pied. Mhm. jurisprudence am na. Mhm. nañu bàyyi ñëpp dem. élection mais aussi ñi kon ñi ñi aux ah, États-Unis non non foofu laa bëgg a yëgali sax loolu laa bëgg a yëgal li mu wax noonu ñu détourné ay milliards. mais déglu mu la ñu war leen a bàyyi ñu bokk. dans les grandes démocraties war a bokk am ku ñu ku ñu daan ah, ci détournement si ah, corruption de la jeunesse loo xam ne teguñu ko fenn ah, ñu ne ko yow doo bokk ñee ñooy dans les grandes démocraties est-ce benn affaire dans les ah. grandes démocraties bu fekkee ni sax da am problème ak justice loolu du la empêcher nga nekk candidat hmm. dañ lay bàyyi ak peuple bi ok nañu jaarale yoon yëf yi rek ñi war a bokk bokk bañ ñu defaral liste ñi ñooy bokk ñee duñ bokk man duma bokk diw du bokk loolu parce que am na benn ce serait euh, extraordinaire mais mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi togg bi euh, supp kànja bi dina dina dina <laughs> saf saf. dina saf dina neex <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax. di jaajëfal duutir bi duutir fu muy jógee. Euh, Casamance ah, Ziguinchor lay ah, jógee xam nga Ziguinchor mënut a ñàkk ci réew mi. <laughs> mi ngi noonu ayca di leen jaajëfal di jaajëfal téléspectateur.